ma Dakar bokk ci collectif national nekk président des jeunes impactés terre collectif national euh, di leen euh, wax ne dañ leen di loo xamante ni mën nañ ne fàtte sax mënu fi xaj tey euh, jaar nañ ci ay jànkonte yoo xamante ni moom lañ jaar bay si fii muy li war a tax te ñu woote tey ndaje bi bokk na ci première bi nga xam ne mooy mbiru terre bi nga xam ne ñun ñoo dëkkoon ci yoon bi nga xam ne moom la ñuy wax yoon bi raay bi jaar yoon boobu mu doon yoon boo xamante ni suñu entreprise fa la nekkoon suñu kër fa la nekkoon ñu dund ci lu metti ba am loolu noonu état xëy benn jour rek indi benn projet boo xamante ni dafa bëgg a dawal raayam mu ñëw def recensement ci ñun waxtaan ci ak ñun ñu xamal ñu ne ñu projet bii day doon projet boo xamante ni ku mu laal mooy gën ku mu laalu projet bii dina nekk ko projet boo xamante nii nga daal di ci gis sa bopp mooy gën mu ñàkk laa laal bu la laalul la moo ko gën bu ko defee léegi nag lu ñu daal di gis ne recensement bi APIX si wax état du Sénégal ñëw proposé ñu ko gis nañ ci suñu bopp ñu daal koy nangoo. ginnaaw bi ñu nangoo loolu ñuy xaar état du Sénégal def comme ni nga xam ne autoroute à péage noonu la demee woon ndax parce que biñ leen di yëkkati ñoom jaar nañ ci yoon boo xamante ni fay nañ leen ci condition xamante ni yu jaar yoon. ñun ñu jàpp ne bu ñuy ñëwee proposé ñu projet boo xamante ni. projet développement la kon ñun jàpp nañ ne projet bii dafay doon projet boo xamante ni ñun dinañ ci gis suñu bopp suñu réew dina ci naatee ñu daal di nangu projet boobu. projet boobu bi ñu ko nangoo gis nañ ne état dafa ñëw daal di ñuy jaay doole daf ñu ñëw dis daf ñu discrimination lañ def jël ñii fayee leen nii jël ñii def leen nii jël ñii jaawal def ko lu neex xajat la ñu ci biir xajat la boobu ñu xajat la. moo waral bi ñu demee ba gis ne mbir yi doy na waar am na lu ci bëri ay la yéwén nun ñu def noo dañu dañoo tooñ ci la ñu daal di jóg ñu ne dañuy ci yoon bi nga xam ne moom la war a jaar ñu daal ne dañuy benn plainte boo xamante ne dañuy plainte état du Sénégal mais plainte nag dafa ñaari façon plainte plainte judiciaire dafa am plainte non état du Sénégal indi na projet projet mu dawal ko dawal ko ci suñuy place ñun ñu daal di nangu jox ko suñuy kër ak suñuy place projet boobu bu bi mu ko dawalee ba pare lu ñuy xaar mu fay ñu suñu alal mu mënuñu jot suñu alal nga gis ñoo xamante ni biñ ñëwee di jël seen kër juróomi junni lañ leen jot nit koo xamante góor góorgóorlu woon na ba am këram ñu ko toj këram jox ko 25000 am ñoo xamante ni góorgóorlu nañu ba am seen kër nga recensé leen ne dinaa leen fay fayoo leen dara ba tey jii nii depuis 14 septembre 2017 ba tey moom ay manquement yu bëri yoo xamante ni dal na ci suñu kaw nga xamee ne loolu dal na suñu te ñu daal di jóg ñu ne dañ koy def comme ni ko xam ne noonu la ko banque bi waxee te état du Sénégal moom moo ko signé ni ko banque bi waxee mooy képp koo xamante ni projet bii def laa laal nga lay indil loraange am nga droit yóbbu état du Sénégal ci yoon. yoon boobu nga xam ne moom lañ jël nag ñun ci la ñu topp yoon bu ñaaw tojuñu sànniwuñuy xeer yàquñu dañoo def li nga xam ne loi mooñ ko may ñu daal di yóbbu état du Sénégal ci yoon daal di koy plainte plainte bi ñu ko defee. dañ ko déposé ci réew tubaab yi tubaab yi bi ñu ko xoolee ñu ne ah lii danañ ko saytu saytu bi nag nan lay demee ñu daal di yebal ay consultant yoo xam dañoo indépendant consultant yooyu jël ay avion ñëw Sénégal waxtaan ak ñun xool ndax ñun li ñuy wax am na waaye bi ñu ko xoolee xam nañu ne dëgg-dëgg li ñuy wax ni état du Sénégal la mu signé wante woon ak moom ak li mu def ni wute na léegi ci la ne plainte bi éligible na léegi ñun ci la ñu topp plainte boobu bi ñu toppee plainte bi ñuy dem di dem di dem depuis 14 septembre 2017 ba tey ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe ñu topp plainte bi dem ba ñu xëy banque bi daal di ñuy jox dëkk daal di ne li ngeen doon wax lépp ay lay yéwén état du Sénégal daf leen a tooñ daf leen a war a fay seen alal ci ak réparer leen jox leen ay conditions yu gën conditions yi ngeen nekkoon. waaye ginnaaw nag boobu ba léegi dañoo wax ne comme ça dañu dañuy dem médiation conciliation médiation boobu ba léegi mën nañ ne dara état bu Sénégal defuñu benn jéego ñu jógewaat foofu noonu. ñu ne waat dañuy xaar document bi nga xamee ne document bu ñu ci jotee document bi mooy réglé cas par document boobu itam ñu liggéey nañ ci liñ ci war a liggéey ba pare itam ñoo ñuy xaar état bu Sénégal comme ñun suñu situation cas par cas rek ko mën a réglé ndax que personne bu ne nañ ko yàqee ak nañ ko yàqalee ak nañ ko tooñee bokkul ak moromam kon ñuy xaar état du Sénégal ni nga xam ne noonu la recensé woon personnes yi kenn ku ne ñu koy xaar ci loolu mu réglé document bi ñu dem ci cas par cas beneen bi biñ jógee ci loolu noonu dem nañu ñu ne ñu ne nag dafa des benn rapport boo xam moom la ñuy xaar muy plan d' action plan d' mooy mbir yi nan la war a demee mais jot nañu plan d' action bi wul plan d' bi nga xam ne complété wul moo waral waaw plan bi nga xam ne moom conti kii complété wul moo waral ñun ñu daal di continuer di xaar état bu Sénégal réparé suñuy mbir. ci plan d' boobu nu mu gën a gaawee plan d' boobu nga xam ne nag moom lañu doon xaar jot nañ ci waaye complété wu ndax parce que plan d' action bi bu complété rek ñun ci nu mu gën a gaawee rek war nañ ñu mën a jox suñu alal jox ñu suñu suñu suñuy suñu kër yaakaar naa loolu la ñuy wax ci euh, borom kër yi ni leen def si fi ñu dëkkoon nag amoon na ay brocanteur amoon na ay am na ay ferrailleur am na 26 corps de métier yoo xam ñu ngi woon ci suñu biir 26 corps de métier yooyu yëpp état dafa ñëw salfaañe seen àq ak seen yelef ndax parce que état bi mu bëggee yëkkati ñu pour dawal raayam dafa fexe ba nga xam ne li mu bëgg moom na ko am dafa fexe ba kenn ku ne mu fayal la ñu jëlal la say bagage yóbbul la ko jam ñaajo bagage yooyu nga xam ne moom la yóbbuwoon jam ñaajo depuis boobu ba léegi nii amul kenn koo xamante ni dem nga fa fekkati fa dara bu dee borom garage nga nga yóbbuwoon fa sa oto ñàkk nga ko ndax nañ ko bu nekkee borom euh, ferrailleur nga nga yóbbuwoon fa ñàkk nga ko ndax nañ ko li nga xam ne moom la ñu ci nekk di ko ci dund mu doon loo xamante ni lu méttee métti la projet bi dañoo wax na nañu projet bi projet la boo xamante ni projet développement la waaye projet toroxalaate la ndax parce que projet bi dafa ñëw ñëw yóbbuñ si ndóol projet la boo xamante ni ñun li ñu daan xaar projet bi ñëw fekk ñu ci benn ñu si ñaar ndax parce que moom loolu la waxoon te loolu la wax ne moom loolu la signé loolu la signé ak bailleurs yi kon ñun xaalis bi nga xam ne moom la état bu Sénégal lebi woon lebi ko ñu naan ay 1200 milliards mu leb ko ci suñu tur waaye bi mu ñëwee war woon lebaat suñu kër yi mais état du Sénégal dafa dem leb ay kër kon xaalis bi mu leboon fan la ko dugal ñu ngi wax APEXI ak président Macky Sall ñun impacté yi ñu ngi wax nu mu gën a gaawee ñu ngi xaar médiation bi nga xam ne moom nga ñu waxoon ak document bi nga xam ne yaa ngi taxaw di ko wax jamono bu ne dégg nañ ci yow cinq conseil des ministres yoo xam taxaw nga cinq conseil des ministres yoo xam jamono bu ne président lan ngay wax fay leen impacté yi te ngeen réparé seen situation te ngeen yóbbu leen ci part bi ni mu ko waxee mais depuis boobu gis nañ ne li président Macky Sall di digle APEX yi fonk ko ndax APEX yi ñàkk koo fonk moo tax président wax dara waaye du am suivi noonu lay mujjee ñun nag def nañ lépp loo xamante ni war nañ ko cee def ñuy xaar réparation ñuy xaar recasement ñuy xaar mboolem koo xam ne blocanteur nga ferrailleur nga mécanicien nga te nekkoon ci part bi ñu ngi xaar nga ñu jox ko paaram ci condition yi nga xam ne moom lañ ko war a joxe ndax parce que état du Sénégal moom xam ne li nga xam ne moom la signé woon ci Euh, condition yi ba indi raayam ñu ngi leen di jaajëfal di leen euh, masawu di jox suñu kàddu euh, mboolem loo xam manqué na ci Abdoulaye Ba dina ko matali muy secrétaire général bi. nous les impactés particulièrement les impactés du département de Dakar nous souffert de ce projet nous avons souffert non seulement à cause de l'application de, non application du PAR je veux dire. Le PAR veut dire plan d'action de, ré... plan de réinstallation. Cette non-application de ce PAR nous a causé des préjudices sans précédent. Je rappelle qu'au début, nous, on n'a jamais été des opposants de ce projet. Comme l'a dit tout à l'heure Ousseinou, on a accompagné ce projet, on l'a tout fait pour que ce projet-là ay à sa terme. La preuve, on a libéré l'emprise sans tambour ni trompette. On s'est dit que les impactés de l'autoroute à péage ne peuvent pas être plus patriotes que nous. On a décidé, nous aussi, de libérer l'emprise. On a vu aujourd'hui les retombées de ce projet au niveau du secteur de transport, dont nous saluons tous les résultats. Le président disait... Euh, surtout que le terre lors euh, de l'an 1 qu'ils ont effectué plus de 3 millions de passagers. Donc c'est à saluer. Ça participe à désengorger surtout la région de, de, de Mais nous, ce qui nous intéresse, projet, lorsque, comme je l'ai dit, lorsqu'on nous a le projet en 2015-2016, on l'a accompagné. 2017, comme il a 14 septembre, on a libéré l'emprise sans problème. Mais on attendait en ce que les consignes, c'est-à-dire ce qui a été retenu dans le cahier des charges, à savoir le premier principe qui est, qui de dire indemnisation juste et préalable, que ce principe-là soit appliqué. Mais malheureusement, ça n'a pas été appliqué. Indemnisation veut juste, veut dire quoi Une indemnisation à la hauteur du préjudice que les impactés ont subi. Mais ça n'a pas été respecté par l'APIX. Nous saluons et nous rappelons la volonté infaillible du président de la République quant à l'exécution de ce projet. Il a tout fait, il a tout donné. Ça, moi, je peux mettre ma main sur le Coran que le président a tout fait pour la réussite de ce projet. Mais les gens à qui il avait confié ce projet, c'est eux qui n'avaient pas, euh, ceux qui n'avaient pas réalisé le projet comme le président de la République les attendait. Cette indemnisation, ce principe-là de non-indemnisation juste et préalable, son, son inapplication a fait que certaines personnes se sont retrouvées avec des indemnisations dérisoires. Tout à l'heure, euh, le coordonnateur parlait des indemnisations à hauteur de 25 000. Mais je vous rappelle, il y a des personnes jusqu'à maintenant qui n'ont rien, rien, rien, rien du tout reçu. Cette situation, en plus d'être iconique, Apix lui-même a pondu ce qu'on appelle le guide du déplacé. Ils ne sont même pas capables de respecter ce qu'ils ont mis à l'intérieur de leur propre guide du déplacé. C'est quand même ahurissant. Toi, on te met en place le PAR, plan d'action et de réinstallation. Tu ne le respectes pas. Tu produis ton propre PAR, à savoir tu l'appelles guide du déplacé et tu ne le respectes même pas. Cette situation, lorsqu'on l'a constatée, ça nous a conduit à écrire toutes les autorités. Je vous rappelle qu'on a saisi à toutes les autorités compétentes, que ce soit le directeur de l'APIX en personne, le gouverneur, le préfet, on a vu le ministère des Transports, on a vu même le Premier ministre du temps, Boun Abdoulaye Dior, jusqu'à le président de la République. Mais nos revendications ont tombé dans le l'œil d'un sourd. C'est ce qui nous a conduit à déposer une plainte non juridictionnelle auprès des institutions internationales qui ont financé le projet, à savoir la Banque africaine de développement, qui est l'actionnaire majoritaire de ce projet. La plainte en question a fait l'objet de plusieurs étapes. Pour que cette plainte-là soit recevable, il est passé par une étape cruciale qu'on appelle l'éligibilité. Tout à l'heure, le coordonnateur en a fait part. C'était pas facile de réunir les preuves pour justifier ces éléments. Et par la grâce de Dieu, on est parvenu à prouver et à montrer qu'il y a eu des manquements, que Apex n'a pas exécuté le PAR, euh, le PAR c'est-à-dire le plan d'action et de réinstallation, qui est le cahier des charges. Cette situation, vu qu'on a le plan, euh, le, vu on a obtenu l'éligibilité des consultants, la BAD a pris des consultants indépendants un colonel en l'occurrence. Lui, il était chargé de faire ce qu'on appelle la procédure de médiation-conciliation. Cette procédure consistait à essayer de concilier les deux parties, c'est-à-dire l'État du Sénégal et les impactés. Il ne s'agit pas, pas de dire qui a raison entre les deux, mais de trouver une solution amiable entre les deux parties. Lorsque on a fait toutes les diligences nécessaires. On a donné le document, comme il a dit tout à l'heure, qu'on nous a demandé. On a tout fourni. À l'arrivée, l'APIX dit, sur les sept points d'accord qu'on avait retenus, APIX dit, oui, je suis d'accord pour traiter vos documents, mais je n'ai pas d'équipe pour le faire. Euh, Quelqu'un qui a eu à traiter plus de dossiers pour libérer l'emprise. De Dakar à Rufusque en passant par Pékin, lui, il te dit il n'a pas d'équipe pour traiter des dossiers de 2000 plaignants. De qui se moque-t-on C'est en ce moment-là que le collectif a décidé de saisir la BAT à travers ce qu'on appelle le MIR, les mécanismes indépendant de recours, pour qu'il active la phase de vérification de conformité. Cette phase de vérification de conformité a abouti ce qu'on appelle un rapport final. Le rapport final nous a donné que les impactés ont bien raison que Apex n'a pas respecté les termes du contrat. Ne serait-ce que si aujourd'hui on constate qu'il y a des personnes jusqu'à maintenant qui n'ont pas été indemnisées, il y a des personnes qui ont été indemnisées avec des sommes dérisoires et c'est regrettable. Ce qui nous a conduit par la suite, avec cette vérification de conformité, à demander toujours au MIR de proposer un mode de règlement. Le mode de règlement a été effectué sur ce qu'on appelle le plan d'action. Le plan d'action en question, comme il a dit, le plan d'action est incomplet parce que la part qui reste il appartient à l'État du Sénégal en tant que l'emprunteur, celui qui doit compléter et exécuter le projet en question. C'est pourquoi j'en appelle au président de la République, M. Macky Sall. Président, vous nous avez félicité lors de l'inauguration du terre en disant que je félicite les impacts du terre pour leur sens de patriotisme, de citoyenneté. Je veux que vous associez à côté de ces félicitations, je veux que vous exhortez vos services à nous payer et aussi à appliquer le plan d'action qui est la seule et unique voie qui permet aujourd'hui aux impactés de trouver une voie de sortie. Je terminerai pour dire, plus que le temps coule, plus que les dégâts irréparables. Aujourd'hui, je veux nommer une seule personne. Il y a beaucoup d'impactés qui ne sont plus là. Ils sont partis. en attendant, en luttant contre ce dossier. Je citerai qu'une seule personne, notre délégué, le regretté, Feu Issa Il en a tout fait. Il en a tout, fait pour ce projet. Aujourd'hui, il est parti. De grâce, aidez-nous avant que d'autres personnes partent pour qu'on puisse rentrer dans notre fonds. Président de la République, essayez aussi de nous aider avant que la fin de votre mandat pour que vous partiez et que nous, nous aurons comme souvenir une personne qui a mis en place un projet qui, en plus de satisfaire les besoins de tous les Sénégalais, mais il a aussi à satisfaire le besoin des impactés en particulier. sept ans ngi nii APIX di ma dawloo nanguwuñ ma recensé te préfet Dakar wax na leen Aline Badara Samb préfet boobu amul six jours ñu ne ko cas yóbbu ndar def góor noor samay document ngi nii préfet boobu avant muy départ bu am na ko mu booleel su préfet kii lif Grand Dakar zone boobu yëpp moom moo ñëw ànd ak gendarme yi ñu jox ma ci ginnaaw dem dikk bi pour fu ñu war a déplacer garab yi trois jours ñu am ko ci garab yi ay camion camion chaque jour cinquante mille laa doon dépassé bi ñu paree ma ne femme bi jàppale ma seetal na ndox ma soowee garab yi ñu bañ a dee mu ne ma apix amatul xaalis bi muy joxe c'est noonu lu jiitu loolu ne nañ ma góor gouverneur Mouhamed Fall réunion na fan yi passé waaye dafa wax ni seize milliards yi nga xam moom la leen banque ñetti banques yi ARMP PIC BAG ñetti banques yi financé terre xaalis boobu kees gaa ngi ne dërëm niw gisuñu dërëm xëy na problème boobu moo tax nanguwuñ maa recensé mais am na six mois ñu doog a jéggi autoroute nag wàcc yegg si man ñun man dañ fii dañoo soxla fii xam nga terre bi lañuy wax teer bi dafa jël lam soxla ba pare jéggi autoroute wàcc si angal muus bi mu ñëwee angal muus loola ci soxna asalam lañ ko jàpp mu ni ma fii dañ koo soxla man leen lu état soxla du ma ko xëccoo def leen ak man ni ngeen def ak ñëpp recensé leen ma ngeen jox ma leen sama àq ma dem femme bi madame ba mu ne moom loolu arrangé wu ko madame ba nag tuddul madame ba Amina si la tudd directeur am yaat ma jéey la tudd booy dugg place de l'indépendance dend ak central bu njëkk man maa ngi doon bind directeur mun taxaas su préfet biñ ma booleel mënu ma du foofu sii la booy dugg place indépendance directeur yaat ma jéey la troisième étage bind ko man naa am da koo yëgul ma dem ci directeur mu bind ko benn weer ñaari weer ma dem secrétaire bi liiral ma li ci ordinateur bi mu ne ma man da leen ma gis ci ordinateur bi man doyu ma ma a lan la mu ni ma ñoom dañu wax ne abal nañ la oto jox nañ la feneen kon APIX yorelatu la dara préfet loolu la signé man ko ban préfet mu ne ma mortalité man ko mortalité boobu ñëwagul mi ngi siin mi ngi siin boobu ñëwagul ndakaar Aline Badara Samb moo fi ne dégg nga demande audience bi ma bindoon Aline Badara Samb 2018 mi ngi ak man lu tax loolu kon lii yéen waa APIX yéen a ko yi amul femme bi ni tekk am lu ñu ma dee ñu ne ma dellu ci su préfet bi la déplacé mu bindal la leetar témoignage bu firndeel ni yow gars yi jaar nañ sa ko yàqal nañ te kenn recensé wu la ma dem toog ak préfet su préfet ma leeral ko nii su préfet bi Modou Mbacke Fall tudd maa ngi ak leetar témoignage man def naa ko lu ëpp di fois ku ci soxla ma may la léegi bindal ma leetar témoignage ni ma def ko ñaar ni ma bii nañ ko teg ci demande audience bi ñu teg ko ci loxol directeur yaat ma ji benn bi nga garde ko ma dem def loolu waxtaan ak secretaire bi jox ko leetar bi ñu toogaat un mois tontu ma ma delluwaat su préfet man ko man damaa ragal ne affaire bu complot la parce que daal la ma doon ñaaw njort ba léegi moom kenn wuyu ma mu ne ma maa ngi ak seen numéro su préfet wër ba gis numéro directeur yaat ma ji mu woo ko wax ak moom ne ma demal ma dem waaw ma dem léegi bi ma demee. toog huit heures secrétaire bi xëy xam naa turam waaye duma ko wax bi xëy si gis ma romb ma dem ci directeur bi ne ko ki la sous-préfet boole loon te bindoon demande audience bi te defoon lettre témoignage bi ñëw na mu ngi fii toog ah ma yaakaar ne directeur boobu dafa maa war a réservoir ku la topp ay lu mat quatre mois cinq mois ñetti at biñu yàqee teer beeg léegi bi mu yàqee bi mu jàllale ma jàllalee foofu suuf booy dugg ci dem dikk foofu dañ ko defaroon ba mu rafet plan ba lépp ngeen man ñetti at mat na ko léegi bi ma demee ma yaakaar ne ma war a may audience ma laaj Amina si mooy madame ba ki yàqoon place ki nga xam ne moo nekk ci téléphone fixe bi mu woo mu wax ak Amina si Amina si ñëw wuyu ko mu ne ko dafa am ku soxla fi booy dugg kolobaan mooy ki nga yàqoon garabam yi garab yu bari la nag ay koko yu bari ak ay filao ak ay teen ak ay bassin ak ay gason mu ne ko wuu ne leen ko nekkut fi ne ko arrêté recensement yi bu yàgg mën jóge naa foofu loolu la ko Amina si wax dal daw dafa daw ma ne ko lan lay daw bay daanu na def ndànk jërul daw na def ndànk man sama dossier maa ko moom bàyyiwu ma ko tey bàyyiwu ma ko ëllëg mayewu ma tey mayewu ma ëllëg. ndax boobu ba léegi jot ngaa laal dara ci xaalis. dañu laal sosal sos yi ñu sos si ordinateur bi dañoo ne abal nañ ko oto jox nañ ko feneen. waaw foofu est-ce que yow abal nañ la oto wala abaluñ la oto. benn plateau lañ gaare pour yàkkamtee jël espace mooy espace bi ñu tabax poste terre bi léegi fi ñu dagg tikkee fi gendarme yi mont diggante ñaari point espace boobu lañ yàkkamti woon a soxla yàkkamti récupérer espace moo tax ñu indi gaar pour na oto yi jóg léegi na garab yi jóg bi garab yëpp jógee ba jeex es doyaluñu espace dañoo daaneel miir bi ñu dugg ci trottoir aslem ñu daaneel filaawo yi ne woon foofu ak ñeemaa yi capitaine John Osefore séeréer yi woo ko mu daw ñëw mu ramassé caabi machine yi faculin yaak fourrière yëpp mu yà bi nag moom mer mu defee ne man maa woo capitaine John Osefore man ko man lool sama yoon nekku ci. mais léegi boobu léegi yow ci lan nga nekk ci lan ngay yëngu. booba léegi. saa bu ma xëyee maa nga fa samp sama ñaari parasol ne ma sama avocat conseil woon mooy defal constat huissier de justice balaa ñu fay laal dara def naa maa ngi sama dossier huissier de justice te it xalaatuma leen a bàyyee tey xalaatuma leen a bàyyee ëllëg dégg nga wax xalaatuma leen a bàyyee tey xalaatuma ku ne nag bind naa ko bind naa Antoine Diome ministre de parce que xamal nañ ma ne bind ko ma dem ñaari weer ñu daaneel gouvernement boobu ñu indi di Sidiki Kaba ñaar benn fan ñaari fan ma bind ko moom it ñu wooma ñu ma yaa nekk bundu Colobane ma ne waaw ñu laaj ma nu deme ma tegal leen dossier bi ñu tànn li ñu ci mooy garab yi bi ñuy dund nañu rafete woon ak teen yi ak li ñu yàq ak mbaar mi ni mu rafete woon loolu la waa ji tànn ak sama ñaar numéro téléphone jël na ko nee na ma dina ko jox ministère bi bu ñëwee waaye boobaak léegi ëpp na ñetti weer maa ngi dégloo kenn wooguma amatuma ci yaakaar tey looy wax Macky Sall làmb mag Macky na xoolaat boppam ñëpp mu leen sulee na nax ñëpp ñëpp ñëpp mu leen sulee na nax de bu fekkee teer bi moom moo doxalee noonu na dellu gannaaw mu xoolaat bopp man de samay garab moom mënu ma koo bàyyee tey mënu ma koo bàyyee ëllëg. bi moo def dossier waaw waaw dossier yaa ngi fi document yaa ngi fi boo liiree lépp li ma la wax lépp mi ngi ñu bind. te foo dem da koy gànnaayoo. waaw waaw li ma jox sama avocat moo ëpp li ma yor du benn dossier rek laa yor boo parce que man nga maa romb ak moto këf ko départ yaakaar ne rëcc nga te doo tax a rëcc. mais père li la yàqal ci bari na bari na 2700 pays koko jee koko yooyu nekk na 4 catégories koko. am na yu ma doon jaay benn cent vingt cinq mille am na yu ma doon jaay benn cent mille am na yu ma doon jaay benn cinquante ak ay banana éléphant yu dem ba tolloog mur bi commencé jur vingt et un garçon trois cent mètres mètre trois mille filao sept cent pays teen amoon na ñett teen ñaari teen yi féete woon na la fi teer bi jël foofu amoon nañ seeni bassin ak réservoir yëpp ñu foto nañ ko mi ngi benn teen bi des ci ginnaaw dem dikk bi moo des boobu dama koo kaste léegi parce que boo ko kastewul dañ koy sabot ma kaste ko wutal nga dal béton fer ciment fermé naa ko rap pour kenn mënatu koo yàq pour en cas ëllëg bu yàlla defee déggoo am sama diggante ak maire bi ñu libéré foofu ma war koo defar ndox ma yokku ma ndox ma naa ko pour yàqkat yi waaye tàndarma yooyu nga ñu taxaw foofu benn bu ne 15000 francs laa ko jëndee woon. Pape ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi rek nga nga nga waaw ngeen baal baax na maa ngi jéggul mhm. parce que yéen seen liggéey liggéey bu métti la bu jafe liggéey bu métti ngeen ne bu jafe ah ku war a xam dina war xam ku warta xam dina xam ku leen war a sikk dina leen sikk leen warta sikki dina leen sikk kon daal nit ñi ñuy ànd ak seen xel di def ndànk